accident ak ñàkk kaaraange yu ñu ràññee ci diwaanu Kër Modou Ndiaye tax na askan yi fay yeewoo doon ñaxtu ci wàllu woowile. métti am naqar ndax naqar bi ak métti mooy dafa mel ni ñu ay doomu aadama ndax dañu gis foo xam ne ñu bari ñu def def ay doodaan def suñuy déclaration lu baree baree bari bind naa préfet bind naa ku ne bind naa fu ne bind naa fa préfet ci ñëw na taxaw fii xool situation su sous ñëw na fi taxaw fii xool na situation xam ne lii jaaduwul mais booba léegi amul benn satisfaction bu ñu defal te ñun ay doomu aadama lañu dañuy ñaan lilaay war a soli président de la république su ko déggee boog na wax njabootam mu dimbali lilaay war a soli may ñu ay doodaan fii plus de dix morts am na fii accident yi bari am na fi am na yoo xam ne ci lañ joxe ñàkk seen tànk. Eh, li am solo moo di. ñun dañu war a xam ni ci dëkk bi lañ bokk comme ñëpp citoyen lañ comme ñëpp loolu dañ ko war a xam te àddina dafa doll foo xamante ni li xew fépp xam nañ ko li xew États-Unis ak li xew Europe ak li xew pale sax dañ koy xam kon ñun toll nañ fa nga xamante ni dañu war a am li ñëpp di am ñu am ko suñu chef de quartier kaas na ñun ñi nga xam ñoo topp ci ginnaaw population bi yëpp ñu ngi jooy pour am li nga xamante ni mooy. door daan fii ci koñ bi te dañ ko soxla ndax wax nañ ko bari na ay cause yoo xam am na fi ay accident yu bari am na fi yoo xamante ay mortel la ay blessé la lool nag dafa dakk dafa war a dakk parce que lii ñëpp di soxla lañ soxla comme ñëpp fii dafa am loo xam soxla nañ ko dañuy wax dóor daan mais dafa am loo xam te insécurité boo xam am na fii ci koñ bi mooy lu mel ni courant dañ ko soxla am na fi ay lampadaires yoo xam dugg na fii ci koñ dugg na fii Sénégal Thiès gépp am na fi mais amul fii fii Thiès Nord nga xam ñun Thiès Nord lañ bokk soo xoolee euh, monsieur le maire ba ci biir koñam ba nga xam fa la dëkk àll ba sax am na mais ñun amuñu benn poto lampe boo xam am na fii ay dóor daan li ko dalee kipp kippe ngi nii kër di Njaay kër ma kër kër Mbay Jaxate ñoom ñëpp amuñu ndox liñ soxla ndox amuñu ko courant amuñu ko boo xam doy na surtout lampadaire yi nga xam da ngay jóge fii jóge ci route nationale bi ba egg ci biir dëkk bi nga xam ay kër la ay sancaan ñoo fa nekk nga xam da soxla nañ li nga xamante ni mooy lampadaire yi amuñu ko loolu bokkuñ ci li am soxla nañ ko dafa am loo xam il est temps nag dafa am loo xamante nii li nit ñi di def di yàq ko toj ñun bëgguñu faa egg dañu yore ak njaboot nag xale yaa ngi fi mag ñaa ngi fi mais bëgguñu toog di yàq di jaxase waaye am na xom su fa eggee nag comme ku yàq ñu ñëw jàppale la ñun bëgguñu egg foofu suñ sañoon wax dëgg yàlla dañuy ñëw ñaan jaar fañ war a jaar ci autorités yi ñu defal ñu li ñu bëgg surtout nag dóor daan soxla nañ ko fii suñ jigéen yaa ngi fii dañuy jaay élèves yaa ngi nii yéen nga leen gis ñeneen ak ñeneen ñi ngi fi de sànc yaa ngi ubbeeku naka noonu ab jaaykat di ci àddu ñuy jéggi oto bi xaaj leen oto amuñu amuñu bu ñuy daw fii daal day mel ñu ne ci kaw avion ci kaw daal la ñuy daw mel na du ay bàyyi ma la ñuy romb ak ay xale yu ndaw xale yoo xam ne mënuluñ seen bopp dara léegi nag bu fekkee mënuñoo am doo daan ñu taxaw ci tali bi yuuxu koom ñëpp ndax ñuy sànni xeer ñi ëpp ñu ñu fit de mais ñun dañoo am yar suñu délégué bu ne def leen dañuy def bu ne bàyyi leen dañuy bàyyi moom lañu jox cër mais bu doon rek xeex rek ak wanante am jom rek kenn ëpp ñu jom ñun ay jigéen lañu bëgg ñoo toog ci kër ga di xaar góor yi luñ indi. te buñ toogee sax duñ toog ndax suñu xale yi di jéggi ci tali bi ñu leen di rey chaque jour sa doom di dee ngay ni ci dëj chaque jour te oto la ñun tamit dañoo sonn Macky liggéey na gaamee nañu fàttaliku te yàlla ndax ñun doo daan la ñuy ñaan ñaanuñu xaalis ñaanuñu oto ñaanuñu jees neen ñun doo daan la ñu bëgg ngir suñu doom yi te yàlla rek tax li fiy dee mënuñoo toog ñetti weer soog amu fi jigéen ñaa ngi nii am jom di jaay ay clémentine nag lu ne mais guddi fii kenn du gis booy ñibbi da ngay dem ba nit poñe la ne la indi li nga yor boo ko joxul da lay rey te bu la reyee sa njabootay perte làmp yi nañ ñu ci dimbali li lay war a suul ñun xeexuñu xuloowuñ dañoo ñaante yàlla tax Macky Sall ñun dëkkuñu Amérique dëkkuñu Europe dëkkuñu France dëkkuñu Italie Sénégal la ñu dëkk. si loolu tàllal nañu suñu micro benn soxna su doomam ñàkk bakkanam si tali bile. man mii taxaw di wax ak yéen ñàkk naa fi sama doom bu góor. te keroog bi mu génnee àdduna ak léegi kere laa mujj a gis sax ki ko génnee àdduna ba muy ba mu ba muy wax ci man dara daw naa ci ba jeex mu jul fenn ma jël samay loxo nag tàllal yàlla takk sama ndigg fas yéenee liggéey ndax yàlla ma ko joxoon xëy na te moo ko jël bi loolu jàllee nun jigéen ñi noo ngi diggante gaaraas ak kër Moodu ab dérélé la amul làmp amul dara dangay jaay ba war a ñibbi dox ba xaajale ñu ne la kar ci diggante bi tàllal la loxo bu la boo gestoo gisoo góor dañ nga dañuy nangu la nga yor baa ñu nangu say téléphone nga dem sunu élèves yi jàngee Thiès di guddee waaj élève bu ci ñëw bu ciy gontu ji léegi doo yottoo yóbbu sa téléphone ndax boo ñibbi si def fii lañ lay kar diggante kër moo doo euh, garaas lañ lay kar nangu téléphone bi ginnaaw loolu waa askanu kër moo du Ndiaye di ñaan wàllu ci gouvernement bu senegaal